Tijaan yëpp keneen sukkandiku. Sëñ Tuubaa li wax si Ahmad Tijaan wax. xam nga lu Sëñ bi wax. Hmm. Ahmadu Tijaan laa saala bayna al xawmi kal laa gis loolu. man la wax invité. Ahmadu dama laa invité bis sàngam bëgg a seere law nee na bis boobu naka yàlla naa invité kuy wàllu yi ci moom képp koo xam ne am nga tomb wàllu bi rek yàlla invité na la ay wàllu hmm. yi rek toll woon daraja ñii darajee sàngam lañ yoon ñii darajee sàngam yi wax ñëpp dugg nañ hmm. waaye ñay député bokk na ñay ministre Eh, ne premier ministre que ku ne la nga doon xamal nga ko sa bopp. Mhm. waaye bu ne administration bi ñëpp dugg nañ. yaa ngi dégg yàlla nag dañuy wàllu yëpp nañ ci benn saal sëñ Tuubaa nee na boo duggee ci biir saal la. Mhm. wàllu wu ne dara di nga am ci yàlla. chaise bu ne mel nga toogee. Mhm. boo ko doon misaal ci àddina. chaise përëm chaise weñ chaise xaalis chaise wurus përëm te yàlla nag bu ko jàpp përëm fii de ak weñ fee yaa ngi dégg ku ne sa dara nga toogee.

ak ñi euh, euh, nga xam ne xaadar lañ bi moo ne asayku Abdou Khadir diili la saala saali dana wasaatal diili sëñ bee ko way Cheikh Abdou Khadir Jilaani na ngeen xam ne boobu ngërëmul yàlla la ku màgg la fa yàlla màggam ci yàllaa ko may Abdou Khadir la waa kër baayam Jilaani la waa kër ndeyam bi mu làqoo faatu ku toll ni Abdou Khadir ku ko am bëgg koo denc sa dëkk Baxdaat ne duñ ko nangu barab ba suñ dëkk la jëm Jilaani ne duñ ko def suñ dëkk lañ ko jëmee ñu coow nar xeex mu def ñaari néew ku ne jël benn. kooku defe nga ne ko nekk kenn. ngi dégg loolu la Sëñ Tuubaa bind. waaye dégg waaye yàlla moomu doon programme yi moo ne Sëñ Tuubaa du wax wala mu di dama man yàlla maa ne fuxtu si waaye bi xitaabil baax yi bi leen bu bi humuril baax yi ne ko guru bi wàllu yow ko xut boo ko labda dañ caa bokkul yow ahmadu lu kenn xamul la wax Sëñ Tuubaa bu baaxee bay wax baaxu baax yi baaxu gaa yi baax yi li ko yàlla def lu ñu ci danga barke sëñ bi daal dugg ci raayi wal bi déedéet mm-hmm. dub xut bu ci yooyu yëpp ah. sëñ Tuubaa nee na monde bu ngeen dugg xam nga dafa xew monde yi daa bëri de bëgg bi ñu àdduna dëkkee monde de alhamdulilah rabbil alamin boo ko jàpp mm-hmm. yàlla ñu koy sant moom yi borom monde yi ah. am na monde yoo xam ne ngelaw dong rek am yoo xam ne ay jinne am yoo xam ne ay xeer am yoo xam ne ay malaayika am yoo xam ne ay yëf-yëfaan sëñ Tuubaa nag nee na monde bu mu ci mën a doon Ibnu Abbas nee na mën na juróom-benn téeméer juróom-benn fan ak juróom-ñaar nee na bu ngeen ci dugg la fa xew mooy ahmadu amul morom xalal la si ahjabanii li kaw nii uhjobatan minhu li kulli kaw ni la si bi wax kaw nu bu ngeen moo ahmadu amul morom a fa xew buñ waxtaan kon na moo ahmadu lu mu doon nit lu kenn xamul ñu daal di lal seen i bixam nit yi loolu am fépp di bu doon wàll yoo xanaa xanaa kon xutbu la ko sëñ Tuubaa du xutbu sama xam nga xam nga xam nga xut bi samaan mooy kan. waaw ku yilif jamono. te di ko yilif jéemee daal rek. sant mhm. daa nga folli ko xut bi samaan ak par président yam. gën jaa bëri ñaari mandat mhm. ah, la. waaw ko man de. Ah. eh mhm. da ngay ah, la xam nga dañuy waxtaan sëñ Tuubaa rek. sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nag waxut maa ko yonent yi de waxu ko de. jéem a kawe yonente ku ko jéemoon a def sax doo ko mën ndax yonente fan nag yàlla leen fa teg te ay escalier doo fa jaar ba dem fa fa ngay bëgg a yëg tamul ña fa toog xam nga du yomb sin buuxut maa kawe yonente yi hmm. dana leen kawee teg na ma seen kaw ah, yàlla mënu <laughs> ah oh. yàlla leen fa teg di yéen ah. kataballaahu tabaaraka wa taala wax am na kaatama haasihi l huruufi sayyarahu llaahu waxut moo ko def de fawqa jamiihil anbiyaa wal mursaliin yàllaa bind ca xalimaam nga ni Ahmadu tag na ko ca kaw yonentam moom jéem faa dem yàlla ko fa yóbbu. wax ko yàlla yóbbu. war a xam. waaw day waaw boo ko génnee fa foo koy dugal. ndax tamit xam nga ñun daa war ko ma wax la yàlla daa problème. solution na ko grand solution. waaw. yàlla xam nga daal léegi. xanaa xamu problème boo gis nga ko def. nam toll problème ba noonu lay toll. waaw yàggoo xam loolu. waaw gisoo problème mu milliardaire ni ñuy réer. milliardaire gàttal. ñi yor 2000 francs seen i problème toll na ni problème milliardaire. déedéet procédure milliardaire mas nga koo dégg yow. bokk naa procédure borom 5000 francs. déedéet borom 5000 francs duñ wax ci rajo yi. journal yi duñ ko bind nii. déedéet ki yebal waa gi 5000 ko prise mën ngaa lire journal ba bind ko. waaye nangam mi la lekk procédure foo toll la bi di ko wax. nan toll la tax. kon kenn ku na nga toll su problème noonu lay toll. Mhm. yàlla bu ëppee ñëpp nag bu bu créé problème problème boobu day gaaw. yàlla daa créé ngan di problème problème bi mu créé mooy yàlla dafay nekk yàlla maa ngi nii maa yàlla ku man nag bi yàlla yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila llaahi wallaahu huwal ganiyyul hamiid yaa ngi dégg man rek kay yàlla kenn du man laneen lu dul man maa ko sàkk ñu ne ko ana ña nga sàkk mu ne mbindeef yi tous les mindeef mm. ak lu ci waay mën a doon nit jinne malaaka jamaa daat ak loo mën a doon lu mu for for rek ci mindeef yi ga mm. baddihu samaawaati wala bi maa sàkk asamaanu suuf an ne yakunu lahu waladun awuma doom mm. walam takkun lahu saahiba dama am soxna lu am maa ko bind kulla shay'in nag lépp nga ca nit jinne malaaka ñëpp jaamu ma dong laa leen digal ndax samay jàmm la ñoom ñëpp nag ci man ma ni wakiilu baa seen mbir du baax kon yàllaa fi nekk ci yàlla keneen ku dul yàlla mbindeef la kon ñaari groupe rek la yàlla jaam sëñ Tuubaa nag comme yàllaa fi nekk ak ñi mu dem mu ne ca jaam ya kon kon jaam ya kon yàlla mbindeefa mi si mi ne kon maa ngi ci mbindeef yi yàlla mi defoo woon nii nee na daal ne ma yóot ca biir mbindeef ya <laughs> na ma buqee teg ci diggante bi àgg bu ca yàlla de génn na ci nit si nasahani minal wara assamadi wa min humo nasahani muhammad sëñ Tuubaa dani yàlla damaa génne ci biir nit ñi ba noppi na rasulullah yow it génne ko xam nga ni doole ju toll ne yàlla ak ju yónente bi kon jàppoo di la génne sa génn dana gaaw ba. Mm-hmm. yaa ngi dégg kooku bëreet la ndax yàlla dañu yónente bi jàppale ma. xam nga yàlla rek bu génnoon mu day waaye dañu leen di jàppal ma fee ma jàpp fii ñu mel ni kii daa jël loxo góos kii jël loxo dara ñu buddee noo ko Ahmadu génnal ñu gaaw ñëw teg ko ci diggante bi problème na sori am na gaaw yàlla yàllaam ji mindee fi mindee fa nii Ahmadu yàlla génne na ko ci biir mindee fi te àggut ci yàlla ji nekkut ci mindee bi grand problème xam nga kon yàlla keree na grand problème mm-hmm. yàlla xam nga ne bu bu